ku armal aj mbaa umra am lu ko gàllankoor nag ba mënta sottal lam armaloon luy àtte ba moom la ñuy wax ci dog bii kooku nag ñetti xaaj la ndax mën naa am mu armal ba àggal am ngànt lu ko téye ba mënta àgg ca kaaba ga mënta àgg ci arafa mën naa am itam ngànt la tee koo mën a dem ca kaaba ga waaye téewu koo mën a dem arafa mbaa boog safaan ba mën naa dem arafa waaye mënta dem ca kaaba ga muy ñetti tomb nag moom la ñu bëgg a àttee képp koo xam ne rek taxaw arafa raw na ko gannaaw ba mu armalee moo xam ne lu tax arafa raw ko kon aj raw na ko bu ko neexee mu far def umra yooyu koo ko lu aajo woon nag muy armalaat armal bu yees armal bu njëkk ba rek doy na day jàll rek mu wër kaaba gi te yéene ca bu wërub umra bi yooyu ko jàll itam dox safa ak marwa te yéene ca muy doxub umra bi muy yooyu ko bu noppee daal di watu daal di yooyu ko nag bu déwénee mu ñëw fay si aj googee te nag bu dee fay si aj googee kat bu mu fàtte ne addi da koy war ndax aj bu la rawee rek nga war a def addiyul fawaat mu ne nag bu fekkee ne aj gee ko raw ba mu yeewu koo xumra da ko armale woon ci biir xurum ji ne boobu da ko fekk màkka mu daal di koy armale foofee ca màkka mbaa boog dafa armaloon xumra ca mi xama bi mu ñëwee nag ba ci xurum ji mu daal di yéene aj teg ca ñu koy tudde irdaaf kon bu ko arafa rawee bañ ko ne defal xumra yeewu koo ko na génn nag tànkam ba ca xelli ja mu door a ñëw nag wër kaaba dox safa ak marwa kon bu fekkoon ne ma nga armale woon aj ga ca mii xama noone rek daal yëy kon du aajowoo ñu naa ko génnal ba ca xilli ja ci booy def xumra yooyu ko bi buñ ko nee defal xumra yooyu koo ko nee nañ ko armal ba moom mëtta yeesal mu ne waaye nag bu fekkee aj gi ko raw fekkoon na mu defoon ca tawaaful xuddoom doxoon ca Safa ak Marwa itam du tax mu ne daay doyloo rek wër baa wëroon muy wërub xumra yooyu ko bi ak dox baa doxoon Safa ak Marwa muy doxub Safa ak Marwa xumra gi ma yooyu koo faw ñu wëraat wër bu yees yéene ca muy xumra gii mu yeewi ko doxaat safa ak marwa bu yees ba tey yéene ca loola buñ ko nee nag sañ ngaa def xumra yeewi koo ko ndegam arafa raw na ko ba tey nag bu ko neexee mu wéy ca noonee mu armale woon bañ a yeewi ko ba déwén maanaam ba arafa ñëwaataat mu dal di taxaw arafa waaye loolu nag day sonle lool ndax xam nga yi ñu aaye ku armal dafa bari te yépp lay war a sàmm moytu leen bañ caa def lenn ba déwén ba mu taxaw arafa ba yeewi ko fa mën a yeewi koo dafa mel ne kon daal def xumra yeewi koo ko rek moo gën a noppale ci moom mu ne nag buñ ko nee sañ ngaa yeewi ci sa armal boobu rek bañ a yeewi ko ba déwén bu fekkee ne kat ñëw na ba dugg màkk mbaa boog jege na koo dugg mbaa daal nekk na ci barab boo xam ne dana fa jaxasoo mbooloo mi far yeewi ko benn yoon mooy gën ndax bu xasee tàmbalee jaxasoo moytu lañ ko aaye woon ci armal ga da koy daal di jafe bi ko arafa rawee bu nee man du ma def xumra di ko yeewi koo damay bàyyi rek ba déwén ma taxaw arafa mu nekk ca noonu nag ba weeru korite teru nga xam ne waxtu aj teruwaat na mu ne nag léegi damay def xumra rek far ko yeewi koo loola sañu ko woon waru ko woon a def waaye bu ko defee nag am na yetti wax yu ñu koy wax benn wax ba dane yeewi ko boobee dañ koy jàpp yeewi ko bu wér te gannaaw ba bu wëlbatikoo aj nag ñu ne ko def nga tamatto jàpp ne def na xumra ci weeri aj yi wëlbatiku aj te jotuta ñibbi ba fa mu bàyyi ko woon jàpp ne kon dafa def tamattu waaye waxu ñetteel boobu nga xam ne moom la taamu moom yi taalif te jàpp ne yeeweeku ba wér na am na waaye nag bu ajee teg ci rek def na tamattu na fay addiyum tamattu waxu ñaareel ba moom tudd ko mbër bii ñooye moo moom daa wax ne yeeweeku ba am na li ko wutaleel bii nag mooy day wax ne moom kenn du ko wax ne ko def nga tamattu ndax tamattu mooy bàyyi ko ci xumra teg ci aj te moom nag ca cosaan aj la armaloon day mel ni kon ku bàyyi ko ci aj dem ci aj rek waaye kenn du ko wax ne ko def nga tamato bay waral ci moom addiyum tamato loolu dong moo wutale yaari wax yooyu moom waxu ñetteel bi nag moom moo xaw a diis moom day wax ne ndegam waxtu aj kos na dugg mooy koor yi te teru na ñu ne ko woon bul yeewiku bu yeewikoo def xumra itam dañu jàpp ne xumra boobee sonn na ci waaye moog lu amut a yem moog lu amut ñooy moo maanaam ba tey armal bu mu amaloon aj ba tey ci la nekk day jàll def aj rek yéele waaye xumra googu kenn du ko faale kenn du ko jàppee dara moog lu amu tayam day leeral nag koo xam ne xës na taxaw arafa da ca waran topp nag muy dem defi tawaaful ifaada tëkku am gàllankoor boo xam daal tax na mënta dem ca kaaba ga lu yàgg-yàgg ndegam arafa rëwu ko rek day jàpp ne aj rëwu ko am na aj ba noppi wala yooyu ko rek dafa def tawaaful ifaada doonte sax ay ati at lay am itam li seen deful tawaaful ifaada rek du yeeyu ko bu ñu biwoon këram josiwaat it baax na waaye moom daal ndegam arafa rëwu ko wala yooyu ko rek faaw mu def tawaaful ifaada bu defee tawaaful ifaada te fekk mu doxoon safa ak marwa baax na bu fekkee di furoon safa ak marwa gannaaw bu defee ifaada mu dox safa ak marwa su ko defee itam dana war a génne menn adiyu ndax bàyyi gam bàyyi sànni jamra ak fanaan ga minan ak mustalifa waaye nag bu ci joxee menn addiyu rek mu war dañ ko wax ne ko wañul yooyu ni ñu toll bu ne nga joxeel ko addiyu bu mujj bi nag mooy nga xam ne gannaaw ba mu armalee dafa am gàllankoor ba mënta dem ca kaaba ga mënta dem arafa mel ne ñu tëj ko kaso ci kaw rek tooñ mbaa xeex am boo xam ne mënta jaar fenn ba dem ca kaaba ga mbaa ca arafa kooku am nag jàppandi lool da yéene yooyu ko rek bu yéene yooyu ko rek daal nay am yooyu ko yéene ji kese doy na lañ cey boole ci bu yoree addiyu daal di koy rendi mbaa mu lëj ko ak wattu ko ñu wattu yëpp day dëgëral rek yooyu ko ba bu yéene yooyu ko rek yooyu ko daal nay am mu mottalee ko nag bu yoree addiyu bu daal di koy loj bu dee luñ loj mbaa bu dee rendi mu rendi ba noppi nag wattu mbaa mu jemp ndegam góor la bu dee jigéen moom jemp rek bu ñu nee nag bu armalee ba àggal te mënta dem ca Kaaba ga mënta dem Arafa da yéene yooyu ko rek ñu ne ko am nga yooyu ko am na kat ñaari sart yoo xam ne mat naa jàpp sart bu njëkk ba mooy loolee ko gàllankoor xamu ko woon naka jëkk laata muy armal bu fekkee loolee ko gàllankoor xamoon na ko naka jëkk laata muy armal tey jàppoon na ne moom faaw dana ko gàllankoor nii mu ko gàllankoore kon bu sañ a yeewee ko faaw mu sax ca noonee mu armale ba déwén sart ñaareel bi nag mooy mu wóor ko ne lii nga xam ne moo ko gàllankoor moom àgg na ci bu dañoon tam arafa raw na ko ba àggal faaw rek tey dama dem ba nga xamee ne lii ko gàllankoor ba mënta jàll yooyu naang moom ba nga xamee tey tey bu dañoon tam mu jóg bëgg a dem it arafa moom raw na ko ba àggal bu fekkee amu ca lu ko wóor kon day toog a toog ba wóor ko ne léegi arafa raw na ko mu daal di def nag xumra yooyu kooko ndegam mën naa àgg ca kaaba ga ba tey nag mën naa téye armal ba mu armaloon rek di xaar déwén nga jàppaale fii ne ki nga xam ne ba mu armalee daa am gàllankoor ba mënta jàll ca kaaba ga mënta jàll arafa su fekkee la ko gàllankoor da di tëj kaso goo xam ne ci yoon lañ ko teg kenn tooñu ko mbaa boog tawata tax kooku faaw day def xumra yooyu kooko mooy faaw mu xaar ba mën a àgg ca kaaba ga def xumra yooyu kooko waaye du saña yooyu ko rek noonee balaa saña yooyu koo noonee day fekk la ko gàllankooroon doon ab noon ab yéefar bu dox diggante mag jàll wala fitna ji xew diggante jullit ñi xeex ak xuloo wala tëjug kaso goo xam ne ci tooñ rek lañ ko teg ku ñu gàllankoor ba wàññiku du tax addiyu war ko ndax dañuy jàpp ne gàllankoor bi du loo xam ne mënoon na ca dara dogal baa rek loo xam ne nag du coobaree mënu ca dara kenn du ko ca teg alamaan naa ko da nga def addiyu koo xam ne dafa amaloon aj am gàllankoor ni nga ko jànge ba tax nag mu wàññiku jàllut kon ndegam ajug farata la woon moom ba tey farata wàcc ko day sonn rek waaye ajug lislaamam muy faratay ajam ba tey mu ngi ci aw loosam bu doon gum ni saroon te ràññeelu ko it nga xam ne gum warlu rek la woon moom ñu gàllankoor ko ba ñu ko itam ba tey mi ngi ci aw loosam rek bu doon nag gum ni sot te ràññeel ko ci at moomee mu am na gàllankoor ba wanniku moom ñu jàpp ni waxtu wa jàll na kon wàcc na ko bu doon aj goo xam ne nag moo ko coobarewu rek noonu dañuy teqale la ko gàllankoor doon ak noon wala tëj kaso boo xam ne dañ koo tooñ rek waaye du yoon dañ koy wutaleeg bu fekkoon ne day ajug coobarewu noonu ba noppi la ko tee mën a jàll doon tawat wala ñu tëj ko tëj goo xam ne ca dëgg-dëgg dug tooñ mbaa boog arafa da ko raw waaye jaawale bi sub taxaw ba rek moo tax mu raw ko su fekkee ne ajug coobarewu la waaye tawat mbaa jaawale bi sub taxaw ga arafa mbaa tëj guñ ko tëj ci loo xam ne yoon la moo tax ajug coobarewu googu sottiwut moom dana ko fay waaye bu doon ajug coobarewu ba noppi nag la tee mu sotti mooy ay noon wala fitna ji xaw ci diggante jullit ñi ñuy xeex ak xuloo wala tëj kaso ci tooñ rek waaye du ci dëgg du ci yoon wuñ koy tëjee kon fay du ko ca war booy takk ni mu tuddee gàllankoor yi da ngay tudd ab noon ak yéefar teg ca fitna joo xam ne dafa am ci diggante jullit ñi ñuy xeex ak xuloo teg ca tëj kaso ci tooñ teg ca nag arafaraw ko ci kaw tawat gu mu tawat wala jaawale gum jaawale bis bañ war a taxaw ca wàññib lim ba ba arafaraw ko ak nag ñu tëj ko tëj goo xam ne ci yoon nañ ko teg bu juróom benn bu fekkee yett yu njëkk yi muy ab noon wala fitna ju xew wala tëj ci kaw tooñ rek mooy gàllankoor ba bu dee ajub coobarewu rek fay du ca war ajub farata nag moom faaw mu war koo fay ndegam moo doon ajub lislaamam maanaam mooy ajam gu njëkk faaw mu war ko fay tax aj wàcc ko waaw bu dee ajub coobarewu rek moom wàcc na ko yett yee nag nga xam ne arafa da koo raw ci kaw tawat mbaa juum ca bis ba ñuy taxaw ba mu raw mbaa tëj koo xam ne ci yoon nañ ko teg faaw mu war a fay loolee mu armaloon muy aj googee doonte sax lu mu coobarewu rek la umra moom bu fekkee lii ko gàllankoor ba mënta àgg ca kaaba ga xamu ko woon tey jàpp na ne moom balaa mën a àgg ca kaaba ga daal ba àggali umraam gii dana yàgg lool dana metti ci moom lool kon mën naa daal di yeewi ko bu xasee jàpp daal ci njort lu dëgër ne gàllankoor bii dana yéex a deñ balaa mën a àgg ca kaaba ga àggali umraam daal dana yàgg dana metti amul yaakaar ci genn yomb mbaa genn gaaw te gis nga ne xamutoon ni moom lii ko gàllankoor dana ko dal kon mën naa daal di yeewi ko su fekkee nag moom laata muy armal xumra bi it xamoon na ne gàllankoor bii moom dana am tey dana ko tee mën a àgg ca kaaba ga kon moom du sañ a yeewi ko benn yoon faaw mu xaar rek ba gàllankoor ba dañ mu àggale xumra ga